وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi umma islaamiya askan Sénégal bu nekk bés bu rëy dafa jóg ndigal li daal di jóge ci kan ki nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké jëm ci kan ci ki nga xamante ne mooy Serigne Bassirou Mbacké Porokhane waaye yan dafa daal di dellu si ci nga xam ne mooy Soxna Awa Diop kan mooy Soxna Awa Diop mooy tànn Cheikh Ousmane bi nga xam ne moo nekk fii ci tamit aw ci bis bi nga xamante ne moom lay defar ak mu jot ki nga xamante ne mooy Serigne Touba Khadim Rasoul di tànn Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bis bi nag dafa dikk kañ lay doon ñu ne samedi lay doon 19 juin 2021 fii ci tali ci Pikine tali Karo te programme ba nag ñu wax ni moo leen jànkuwante si say yëpp ñu ngi leen cay woo bàyyi wu ñu kenn waaye nag a nga xamante ne mooy borom bu ndigal war koo fanaan mooy nga xamante ne mooy seen Sam Sam moom si biir Samba Mbacké moom Cheikh Fadi waaye nag soxna Awa nga xamante ni mooy parrain di la l'ancien président maître Abdoulaye Wade waaye tamit daal di koy toppal kan alxaaji Mbacké yu fay. moom Serigne Touba Cheikhoul Khadim di le représentant de Serigne Touba fii ci biir Dakar soo xaw a jógee itam moomu ndax jël na ki nga xamante ni ay xaritam ay soppeeku am di jàng yoo xam dafa bokkoon ak ñoom liggéey bi daal liggéey ak ñoom suñu borom la ñu jiitu bi ñoom la ci bëgg a rendre hommage ñaanalaat leen ci fàttali ko waat leen te xam ne kulli nafsin zaa'iqatul mawti kër cee jiital muy soxna Fatou Ndiaye Gueye nga xam ne Pikine xam na ko Guédiawaye xam na ko Thiaroye xam na ko waaye plus particulièrement banlieue bi moom xam nañu kan mooy soxna Fatou Ndiaye ki nga xamante ni mooy soxna Khady Lo ñaar ñoo leen ci bëgg a rendre hommage gën a leen ci dugal fàttali ko waat leen ñaanalaat leen yàlla fa ñu tëdd sans borom tàmbal leen càgg leen gën a ni mooy dëgg-dëgg ñu gën daal mooy bés baa boobu ci Pikine Kali kaw Kali bi mag foofu la foofu la bés bi ñu xewee ku ca xewal di soxna Awa Diop mu sëriñ ci waa Xaadimu Rasuul kon nag bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu gan bàyyiwuñu fenn ñu ngi ciy woo képp ku dégg kàddu bi xam ne daal bi la soxla ko di porté léegi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yàlla na ko teew fekkee ci jàmm ak salaam ak sabir te teew wàcce ak yu bëree bëri ci dara ji Seexuna Ahmadu Xadim barke Seydina Maam rek jërëjëf wasalaam wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور